attention mbayang lum o yaal mbin farba fo ke widuna seeri pap sen xut aca mbayang lum aca mbayang lum nene roktiidu kam ngel ne xaye aca mbayang lum nene roktiidu kam ngel ne xaye nene roktiidu xaye xaye saqe kaana le andamta paam xan i lamto xa tax saqe a kaan xaye mbayang lumo nene roktiidu kam ngel ne xaye mbayang lum ne roktiidu kam ngel ne xaye nene mbayang luma roktiidu xaye o yaal mbin farba fo ke widuna seri pap sen xuut nene nget widu mbayang waay ay way ci raju fa waye anga ti da mbayang kay ay way ci raju fa kay way momongo ma jaga kata fa ka imatangan kan ilain gudi gudi buki jap bay atas yang bayang lungway nene bayang ngarok ti du kay rasa kay akanale anda meta pam kan ilamtin kata atide akan nene bayang lu maro pidu kama halo halo wa wa abela de achele anu nene bayang lu maro kita nene kam kan le nasa kay akan kayo koy anam tapam kan tin kata ko sa kay akan ale momon ko mantiga kata tafa ya, ka ale gudi gudi buki jat bey ase yona ko bin yalan tv ase kom ne letu anun rek bayang lum kam Arok watik danda zakay akana le khaye anam tapam kan ilay islam ke zakay akana le adiga ka momon ko mafakana ilay nun bayang lumo kay batere aw Babaleng mbayang lu mbay batere aw Babaleng ade ka mo mongo ma faka ilay nun ale guddi guddi bu ko jàppee attention mbayang lum Babou Walid Bourgnon, Assane Sène, Ousseynou Djigo. Sene Mbayang Luma Roktidu aca momongo mino weeyo